Euh, bisimillah ci xibaar yi léegi moom wér na jàngalekat yi nekk fële ci diwaanu Kaffrine te bootu ci ginnaaw grand cadre jël nañu dogal ni euh, du ñu teew ci mboolem examen yi amal ci ñi yeexatale at mi muy nag ab dogal boo xam ne nii euh, dañu ko jël rek gannaaw ba ñu woowaatee ñeneen ci seen natango yi police ndax lañu lank ni du ñu nangu réquisition yi nga xam ne nii Euh, moom lañ leen yónnee euh, ci am ndaje nag mu yaatu mu ñoon amal ci buntu police ba ñoom jàngalekat yi ñu ngi sàkkoo ci Serigne Mbaye Thiam ñu jëlee ko ci bopp ministère de l' nationale dañuy dem ca Kaffrine fekk fa amatul Ly mbay jàngalekat ya nekk ca Kaffrine ñu daal di leen di convoqué waat ca commissariat ndax li ñu lànk ne du ñu jël bataaxal yi leen nguur gi yónnee syndicaliste ya nekk ca gox boobu nag di ko naqarlu rax ci dolli di xam ne naan du dëgg te du yoon. ñoom nekkuñu si yoon pour jox ñu réquisition ndax amul benn disposition juridique bu leen permettre ñu jox ñu réquisition. premièrement deuxièmement ñun ñoo nekk ci yoon bañ a jël réquisition yi parce que lu ñu nekk nii naa li mu nekkee ci ministère bi bañ ko falee ba léegi nekkul li nga xamante ni arrangé na système éducatif bi nekkul li nga xamante ni arrangé na jàngalekat yi. bu ko mënut ndax bu fekkente ni amul culture d'émission na président de la république jël ses responsabilités mu jëlee ko ci ministère bi. yom jàngalekat yi nag ñu ngay xuppaka dankaafu di xam ne naan du nu bokk ci examen fin d'année yi rawatina anticiper vidéo yi ñu dëgmal. kenn du dem surveiller examen bi benn la boobu kenn du ko corriger ndax on a vu le collectif des professeurs de philosophie. 70 pour cent d'entre ñoom ay contractuels lañ te xeex bi ñoom la soxal parce que dañuy xeex pour ñu defal leen formation kon ñoom jël nañu seen matuwaay yu mat sëkk sujet examen yi ñoom duñ ko corriger bu ñu surveillé wul yi corriger wuñu ko loolu noonu aussi yaakaar naa ne examen mënu faa am. dañuy dem ba jeex luñ ci góob gar examen yi duñ ci bokk non seulement te dinañ jël convocation yi te duñ dem. jàngale jàngalekat yi nekk ci diwaanu Kaffrine te bokk ci grand cadre xam ne nañu ne li nu màtt duñu ko bàyyi dañuy wéyal seen xeex bi ba nguur gi sàmmonte ak li mu xaati moon ak ñoom Amadou Ly Mbaye fii ci Kaffrine Walfadjri jaajëf Amadou li Mbaye ñu ngi lay sant la gërëm askan woo dëkkee fu fële ci Banba Thialène di benn gox boo xam ne nii ma nga nekkee fële ci diwaanu Koumpentoum askan woo fa dëkkee kon ñi ngay yëglu seen i kàddu la ñuy yëkkati ñuy sàkko ci nguur gi mu dimbali leen ci courant kurang euh, daal doon la nga xam ne ni lu leen yitteel la euh, dimbali tamit ci yoon wi nga xam moo jógee seen gox bi jëm Koupentoum loolu kon ñu ngi ko xamle ci am ndaje mu yaatu muñ fa amal euh, lu jëm kon ci xibaar boobu la daañu si dellu soit ak suñu nattangoo bi di Alassane Diallo. démbeeg dikki bi doon lu tum ranki lool ci diwaanu Louga sa fërieg transporteur yi ne liggéeyatuñu ndax maraudage teg ci seen yoon yi baaxuñu dañuy dem ci Louga fekk fa Omar Kayre ñii di yëngu ci wàll dem bekk dikk bi fii ci Louga ay jafe-jafe la ñuy jànkoonteel bis bu nekk li ko waral di yoon yu baaxul yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi mu di nag loo xamante ni ñoom ñii daat nañ koy joxam baaram te di ko naqarlu kàmb yi bari na te oto yi dañ ciy dugg waaw te seen routine day yàqu kon war nañ ko defar bari na loo xam daal liy yàqu bari na te taw baa ngi ñëw toujours ñu ngi leen koy wax daal wax dëgg. bu jàppale ak télé bi jógee gouvernance jëm sanc ba noor chauffeur yëpp nga koy jàmbat tali bépp du ay kamb la. tali moom bëriwul lu fi baax dara baaxu fi tali bi yi fi baax yu ndaw ndaw la yi nga xam ne moom la mujj a defar mais yenn yi fi nekk yëpp circuit bi foo mën a jaar di wàcc client da ngay son ndax i pax day yàq sa oto pour ne li ñu ciy jënd bari na li ngay jënd ci wàllu article pour sa kanamu oto da ngay dem jënd amortisseur wala nga jënd say yenn yi pour monter sa oto du baax da ngay fay maire soo xëy weer bi dee da ngay fay 3000 francs soo fayul fii la ñuy fekk ci biir garage bi jàpp suñuy oto wala ñu yow saboñu su weesoo yoon yu yàq yu bari ci dëkk bi dolleeku ca li nga xam ne ñoom chauffeurs yi moom nañu tuddee concurrence déloyale ñoom sax nee nan dañ leen di gënale ak ñenn ñuy yëngu ci wàllum transport bi. dool nii ci dëkk bi dakata yi bari nañu voiture yi bari nañu yow da ngay am carte grise am permis de conduire am assurance yëpp nga yor ko ba pare soo génnee bu nuy frère dañuy yóbbu taximan bi bàyyi fi jakata bi jakata bi day circuler lu ko neexee. lu jëm ci maraudage bi tamit bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci transport bi fii ci Louga. ñu fi bari daal yor nañ oto yoo xam ne ku fi liggéey parce que ñoo xam ne bu ñuy dem dañuy yab am na kalandoo yoo xam ne dañuy yab yóbbu bi gën a jafe nag mooy dañuy yab suñu client di ko génne par dix kilomètres di ko yóbbu Màkka Bragay di ko yóbbu ci croisement yi wala ñu koy yóbbu ba Kell Gueye wala ba Géoul di ko fa jaayaat ay yeneen oto yooyu mooy suñu problème daal te suñu wax dëgg yàlla doyul. di teg nag jafe-jafe yi boobu ba léegi toll ci ay at ñoom acteuru transport yi ñoo ngi woo autorités locales yi ak waa état ñu daal di bàyyi xel seen jàmbat yi le jakarta yi war nañ leen a xool tamit ñu régulariser ñu jox leen seeni i ñoom tamit ñu am seen loo xamante ni bu ñu laalante ñoom arrêt d'état ñu am mën a constaté parce que nit ñi ñu ngi ciy daanu bu oto laalante ji benn benn benn jakarta kooko gaañu bu wutul day perte parce que assurance jëlu ko en Jakarta amul assurance amul dara ba boole kook fu la fekk day jël client bi yóbbu ko yow bu fekkee ni chaque fois da dagg say pièces yëpp ba pare assurance euh, Jakarta bi ëpp la doole yow doo mën a dem. nañ defar tali ba baax parce que bu weer dee bu boo fayul trois bi dañ lay dàq seen oto jàppale yóbbu la maire yi. loolu nag kon ñu war li leen war bu ñu defee lu ñu war ñun moo jakarta yi ak voiture yi ñooy moyen de transport yi nga xam ne ñoo am fii ci capitale bu Njàmbur. waaye nag ñi nga xam ni ñoom lañu dékk suñu micro ñoo ngi ñaan ñu gën a réglementer seen secteur boobu ak yamale ñëpp Omar Kayre Louga Walfadjri jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi bu ñu jógee foofa ca Louga dañuy xuusan dem ba fële ci diwaanu Podor ca gox bi ñaa Ila Morphil la fa dëkk ñoom it ña ngay yëglu ndax bu dee courant amuñu ko amuñu ndox mu la muñu naan eh, teg ci seen suuf si mënuñu see jot eh, lu nekk nag def nañu ko fu nekk dem nañ jooytu ko fa waaye dara léegi daal leen desee mooy gàddu seen yoxo topp ci mbedd muy yuuxu wàllu dañuy dem ca Podor fekk fa abukan ginnaaw bi ñu nekkee diggante fleuve Sénégal ak le Doué bëri na fii ci Île à fii ay jigéen ñi ànd ak coono ju tar ngir mën a daan seeni doole lu waral gàllankoor googu googule bokk na ci lu mel ni ñàkk mën a am ay crédit ak ay équipement technique ak yenn ressources yi mel ni ndox ak suuf si Racky Samba Diallo dëkkee fii ci bokki Diallo bi. nekk nañ ay jigéen ñoo xam ne jigéen ñu takk lañ te bëggu nañoo liggéey waaye nag fu ñuy liggéey mooy problème am nañ suuf am nañ ndox mais nag amuñ amuñu accès ci crédit yi. kenn xooluñu kenn fàttaliku ñu ndax ñu ñoo nekk fond du département de Podor mais nag dañoo fàtte ndax lu tax ñun dañoo fàtte ñoo ngi gis suñu jigéenu morom yi nga xam ne ñu ngi leen di financé ñu liggéey ci ay groupement di liggéey di béy am nañ ndox am nañ suuf di ñun di liggéey ñu leen di financé ñuy liggéey te ñun amuñu ko soo xoolee département de euh, arrondissement de Saldé jigéen ñi fi nekk am nañ jom am nañ fu la bëgg noo ñooy liggéey waaye nag fañ koy liggéey moo amut Falamata Ly di présidente de l'ADS association pour le développement de Saldé ginnaaw bu mu xamal ek jigéen ñi ñu ngi fépp di def leen war li wante dañu dese lu bari ngir ñu mën a moom seeni bopp. ñëpp xam nañ ni fii dafa sore dafa metti amuñu lu bëri xamuñu tamit lu bëri ñi ngi ñaan aussi nguur gi mu dimbale leen ñu am accès ci ay financement parce que bu ñu boo bëggee mën a liggéey aussi il nga am as loo denc pour mu mën la jàppale nga mën a euh, liggéey. nañ ñu dimbale ñu am ay financement pour suñu ay groupement pour suñu ay association di ñu yombalal crédit bi aussi. ngir nag gën leen aar ñu gën a leen itam accompagner ci seen liggéey bokk na ci lu waral formation ñaari fan yi ñu leen defal fii ci salle de Tébégout jëm ci renforcement seeni compétences managériales ak financières fii ci podoor seen natango bu kan pour la télévision Walfadjri ñeneen ñuy dund ay jafe-jafe ñoom ñu di nappkat yi nekkee fële ca Guet Ndar ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote di saako ci nguur gi rawatina njiitu réew Macky Sall eh, yi leen waa Mauritanie digoon ci weeru eh, ñu génn moo wax ci seen ko ci micro Gabriel Barbier wàllu napp gi am na sooxee tuuti li ko ñoo andi seen loi bu bees wax ni gaal gu amati licence de pêche Mauritanie ngay débarquer te ñun loolu mënuñu ci accord bi transbordement nga teer ko foofu ak conséquence yi ci am ñu ni loolu mënuñu ko état bi licence bi daan jar euh, dix euros par tonne ñu yóbbu ko cent vingt trois euros daaw bi ñu demee ànd ak ministre Omar Gueye ñu yëkk si cinq euro yooyu cinq euro yooyu état bi moo nu ko fayal kon ñun napp gi ñun am na sooxee bu nu si am boo xam ne état moo nu supporté loolu cent soixante deux millions mu fayal na loolu état def na li ko wax mais li ñuy ñaan di ko ñaan ba fi nu toll nii nii nii actuellement gis nañ ni blocage bii nu am nii diggante ñaari président yi ñaari état yi dafa am lu leen liyee loolu leen liyee ñun mool yi xam na nu loolu lépp ñun ay nappkat lañu mais kenn ku ne xam nga ni diggante Sénégal ak Mauritanie war nu man ñàkk am accord de pêche ndax seen loi boobu ñuy wax convention bi nga xam ne moo lié ñaari état yi moo ëpp doole seen loi boobu président Macky noo ngi lay ñaan si sa kattan nga woo président Assis nga wax ak moom si sa kàddu ndax sa ay ndaw wax dëgg yàlla def na nu li leen war ministre de la pêche def na li ko war premier ministre recevoir na fi def na lu ko war kon yow mi nga xam ne yaay président de la république di Sénégal yow la ñuy woo nga jël sa téléphone même boo ko mënul yow sa ndaw nga dem Mauritanie nga régler diggante ñaari état ndax métti na si napp gi fii si Ndar si Saint-Louis ndax ñun dañ dëkk ak frontière te frontière dara mënu ko régler lu may accord barka démb barka di démb semaine bi passé arrosé nañu gaal démb arrosé nañu gaal te gaal yooyu waruñu woon dugg foofu ndax accord bi dafa jeex ku fi dugg it buñ la jàppee dañ lay arrosé loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci Ousmane Sène Mbaw Villeneuve la ñu koy duppee waaye boo fa demee bu weesoo tabax yu bees nga xam ne ni euh, moom la ñu fay jëmal dara lu bees amu fa Sicap daf leen a jaay barab bi waaye amul lenn lu ma fa def maanaam wàccu wula contrat muy dëppoo gi doxoon ci seen diggante ñu ndox amuñu courant teg ci bu timis xasi jot kenn dootul ñeme génn ci biti ngir ragal ku la addu kalpe Abdoulaye Kébé am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro bi ñu ndox. fekk nu fi euh, électricité amul euh, benn viabilisation dañu tegal ay poteaux rek xam nga soo xoolee poteaux yi da ngay foog ni lépp ngi si mais soo ñëwee ci terrain bi loolu moom da nga koy dund. am na partie boo xam ne fii su tawee dafay am ay ñax jaan yëpp daf am c'est pas quelque chose bu nu inventé dafa am jaan yoo xam ne ñu ngi ñu ngi rey si cité bi. les gens sont vécus famille mais c'est l'insécurité wóorul sax nax la nax la dans la mesure où ñun li ñu waxoon au départ fekk ñu ko fi dañu egg suñu limite daal ñoom il faut ñu jël seen responsabilité def lu ñu war def le site n'est pas viable il faut qu'on le dise nous avons des problèmes de viabilisation d'insécurité d'insalubrité d'accès au site l'aménagement à chaque fois on on nous remet délé des délais dans deux semaines dans un mois. dama nekk en état ba dix damay dem di rooti fii si station parce que jënd nañ ndox jënd ndox mënatuñu woon jënd ndox parce que loo bëgg a loo war a dépenser sa kër nga def ko si ndox bi. xam nga sa élèves yi dañuy xëy suba teel nga war a daw dem il faut nga dem si station bi. kon ñun ñun dañu mel ni ñu nekk si village dëgg. ñun dañoo sonn sincèrement. maintenant nous tout ce qu'on veut c'est que ça prenne fin. jàmm gàddaay na ca faculté de droit ba nekkee ci université Cheikh Anta Diop Ndakaaru njiital faculté ba laxasaay na bu dëgër fas yéene jàmmal ak yi nga xam ne nii euh, dañuy diŋat tànneef yu bees yi ñu def jëmale ko ci wàllu master ba tax ñu xëy démb daal di créé ab grève bu ñu amul app loolu la wax ne du ko bàyyi mu jàll bépp étudiant bu ñuy gisati ngay diŋat dogal yi nga xam ne jël nañ ko. Euh, dem sax bay xajamal njàngame njàngalim booba euh, daañu jël ay daanuy yu saf sàpp teg ko ci sa kaw ndodd Ndeye Amama Si Mami Kanté doxantu ju woon nañu ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu teewlu leen ci reportage ñi am licence euh, ci diiru ñeentu at faw ñu am nag euh, moyenne euh, bu tolloog wala sax mu ëpp onze sur vingt ñi nga xam ne nag ñoo ko am ci diiru juróom benn at ñoom nag faw ñu am douze sur vingt wala sax lu ko ëpp yile condition nag mooy yu ñu pour bépp étudiant boo xam ne dafa am licence ca faculté de droit ngir nag nga mën a bokk ci master yi yile condition nag mu mel ni neexul benn yoon ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn étudiant yi nga xam ne nag ñoo am licence te wuyuñu ci les critères loolee tax nag ba ñu teg seen loxo ca campus pédagogique ba dara mënut a dox ci noonu kii nga xam ne mooy doyen bu faculté bi génn nag ngir indi ay leeral étudiants yi nga xam ne ñoo koy jiñ nag boolewu leen woon ci waxtaan gi Mamadou Badji lii la leen di tontu. non du loo xam ne na ñoom mënoon nañ ci bokk li ko waral moo di ñoom daaw amical amu fi amical amutoon bu ñuy def critères yi amical amutoon parce que amical bi dañ ko suspendre woon ci at yee passé comme ni ngeen ko xamee amical yëpp dañ leen suspendre kon bu ñuy def critères yi ñoom fekkee fekkee wuñ ko woon ngir nag génn ci jafe-jafe yu ni nekk ay saafa yu bëri nag jot nañ kaa proposé étudiants yi waaye mujju ñoo nangu benn bi ci mujj nag di bu comité bu facilitation bii ñu teg étudiants yi nañ leen yóbbu ci yeneen faculté bu ñu xoolee am ñoo xam ne volontaire nañu pour dimbalee fac de droit puisque ñun amuñu place bu ñu ko proposé étudiants yi gis ngeen tey li fi xew si suba nee nañu ñoom d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci suba grève illimitée ginnaaw amical bu faculté bu droit nag ñoom taxaw na nañu temm ne duñ teggi seen tànk doyen bu FSJP nag moom mi leen di artu doyen nee na euh, waajur yi nañu wax xale yi ñu ñëw jàng alxamis nee na danañu fexe conditions yi nga xam ne ni étudiants yi war nañu jàng ñëw ñu fexe ñu jàng loolu moo gën faculté bi étudiants yi am nañu sañ-sañ laajte c'est vrai parce que seen droit la mais aussi war nañu bàyyi ñi nga xam ne ne ñii bëgg nañu jàng ñoo fekkee ñëw ñoo seen jël seen cours. professeur Mamadou ji di xamal nag képp ku song ay agent wam dina la yóbbu ci yoon. ngir naka ñu bañ a yegg ci loolu mi ngi woowaat étudiants yi ngir ñu xoolaat seen doxalin ngir naka ñu mën a sauver premier semestre gi nga xam ni léegi ñu ñàkk ko. jaajëf soxna Ndeye Amama Si li ëpp ci jullit ñi nekkee ci réew mi ni ki tey ji stratégie ci lañu ñu um koor muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yoo xam ne nii dañoo fas yéene dëddu lekk dëddu naan ci bëccëg bi ngir matal santaane borom bi eh, weeru koor yu nag tàmbeek dëkk bi metti lool marché bi naqar yi ndax mbeng Ibu Ngom doxantu ju woon nañ kon ci biir marché yi ñu teewlu leen ci reportage bu weeru koor bi jubsee jumtukaay yi jëm ci dund yi soxna yi dañ koy gën a soxla lu ko demee ni yàpp jën wala légume ne xuus ci marché yi ñu mën cee nemmeeku yokkute ci yi la njëkk sëñ Fallou jaay ma yàpp kilo ñaata ah na di ah lii moom lii moom doy na waar de faamakat di ab jaay ca marché Castor di xamle ni lii di jën cher na lool ci weeru koor gi seer na ba seer jaaxal nu ndax gis nga sompat bi noo ngi ko doon jaayee 6 000 7 000 la jàpp jàppoon sama digganteeg Seydi Babacar ak koor gi 7 000 la ñu jàpp yaa ngi dégg li ma lay wax sonn ba bëgg a dee gisatu ko nu jaay. Tewa Faye ca wàllam di xam le ni client yi tuuti rek la ñuy ñëw. ñun fi mu ne nii gisatuñu sax client ñëpp nga daw marché central ñun bu ñu sañoon na ñu ñëw fii di jënd ñun ñu leen di jaay moo gën. du dëgg waaye da ngay dem di mbëkkanteeg ñoom marché ñun bu ñu ñëwee fii di xoolante ak suñu njaay te ñoom ña nga marché central di jënd comme ñun di séddoo di yóbbu seen kër yi di denc. keneen a ngi nii di ab jaaykat di wuyoo ci turu Alfasila nee na légumes yi moom kenn yokkagu ko. non seerul seerul seerul carotte cinq cent quatre cent moo fi am hmm? su pomme ñoo yem prix patasa ah, mu ngi yar quatre cent cinq cent. navet 300 400 yakatu 600 500 même ñambi noonu bersin seerul daal dara seerul Fallou Sène moom di gis boppam bu baax ci njaayub yàpp gi dëkk bi neexul waaye di ñu ngi ñëw nànk-nànk sa client comme bu yàgg moom comme dañuy tàmm bu ko weer koor ñëwee rek ñu ñëw jënd lu bëri par kor ñu mën a génn daal waaw ñu ngi ñëw nànk-nànk daal ñu nemmeeku ci marché Castor néew na di gis soxna yi di dugg dugg koor waaye nag jaaykat yi ñi ngi am yaakaar gis client yi laata koor gi di am ñu woy ba tey ci fànn woowu weeru koor bi nag doon tere ci jaaykat ak defarkatu frigidaire yi ñu bari si ñoom nag dañuy yàkkamti lool koor gi yegg seen ndax ci la seen liggéey di gën a dox xadis si la Iba reportage yàgg na am na defarkat yeeg jaaykatu réfrigérateur yi ñoom seen affaire ngi dox bu baax a baax ci bu ñu duggee ci weeru koor gi. waa koor gi moom dina dox moom. nga jaay semaine rek di nga jaay jour bi mun na jaay ñaar appart wa ñett. koor gi guy jub nii sénégalais ñoom dañuy soxla frigo quoi maanaam jëndum glace bi day xaw a métti te et boo amul frigo sa kër daal maanaam doo mënu doo ñemee ndugg sa yenn ndugg yi il fallait rek nga am sa frigo nga mën a def li nga war a def yëpp maanaam ay ndugg une semaine ak wala ay ndugg quinze jours yooyu noonu moo tax koor buy waaj nii dañuy dañuy daw si di ñëw di jënd ndaw si ñu taseel moom dafa ñëw defar frigoom ndax nee na jënd yi ñu war a jënd ci weer gi ci mbirum lekk yi tax na ku nekk da nga war a am frigo bu baax xam doomal dem chaque jour marché da ngay dem marché dugg sa ndugg deux moo tax ñuy defarkatu frigo bi nee na boo gisee frigo yu bari di am ay paan lu bari ci problème mu moteur la doon. frigo seddaay bu jotee maanaam am na nu am na niveau bu muy nekk mun na fonctionner comme tàngaay bi du muy duggee nii maanaam dooley frigo yi day wàññeeku maanaam fay laaj ay dooli gaz wala ay moteur boo xamante ni dootul attan maanaam climat bi fay laaj pour nga yokk puissance moteur bi. weeru koor bi nekk na weer gi nga xamante ni famille yu bari dañ ciy profito jënd ay ñam yu baax ak ay lekk yu baax waaye lu ñu mën a seetlu mooy ñii di defar frigo ñoom seeni mbir mi ngi ciy dox bu baax a baax jërëjëf soxna Xadi soxna kon Xadi Silla ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ñu dikkee yéen ci gëstu bi tey ji nag Ousmane Sène mi ngi àddu jëmale ko eh, ci jafe yi nga xam ñu koy nemmee ci wàllu kay njàng mi jàngalekat yi ak eh, nguur gi daal daanaka eh, seen diggante métti lool ba tax daal Ousmane Sène xëyitee ji daal di ci amal ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. ki tëju ci biir ki ci biti moo ko mën a tijji nguurug Sénégal nag moo tëju ci biir classe yi mënatul génn ñi ko mën a tijji di jàngalekat yi ne balaa ñu koy tijjeeti dégg kàddoom ci biir ba xam ndax méngoog nag bi ci biti ndax def leen njëkkoon wax dara te loolu gisuñ ko woon tax tey jii nag dóor fayu dugg seen biir ak xeexoo gu métti ma ne dóor nag dëkku la woon waaye ba fa fayu duggee la tas te ca lañ ko sàncaat kenn xamul nag liy sàncaat école Sénégal ndax jafe-jafe yi bëri nañ torop jàngalekat yi nag nee nañu amuñu doole waaye seen mbaam mi ku ko rëy yaay gàddu bi bañ àgg fa ñu jëm war leen fa atte te dàquñ ci ba dem ca organisation internationale du travail ak bureau international du travail nguur gi ne dooleem la yor te itam bu ñaanee mayuñ ko dina jëfandikoo dooleem nangu ay réquisition lay jébal jàngalekat yi maanaam kay liggéey bu ànd ak sañ bañ te jàngalekat yi bañ nañ ko ba tax ñu ngi leen di déglu ca gendarmerie ak ca police te ci mujj ci caaro yi ay jàngalekat tollu ci juróom-ñaar fukk juróom ñu ñu déglu ca police ca Kaffrine naka noonu démb moo tax ma ne malade bi garab guñ koy mënti jox itam li koy dàqe bàyyee gu ko te boo moytul mën naa daanuwaat feebar maître Alioune Badara de la république démb la toog ak syndicat yi CUSEMS ak SAEMS CUSEMS bañ na ajandi nañ seen mot d'ordre de grève maanaam waroon tee seen yoxo ëllëg ci examen baccalauréat philosophie yaakaar juddowaat waaye itam coow juddowaat ndax tam bu fekkee nguur gi day bugg di raay ak loxo càmmoñ bu noppi nag dóor kurfeeñ ak loxo ndeyjoor jàmm du fa gaaw a am te jàmm ji ñuy sàkku ci biir l'école bi am na ñu mu ñor lool mel ni nag am na ñu mu ñoragut ñi mu ñorut nag mooy ñi fi seen doom yi nekkul te mosuñ fee nekk ca 1960 ba léegi ñuy wutuwante ci ay seen doom di jàng ci biti mosu ñoo ci coow te duñ ci mos a bokk mukk beneen ji sax duñu ci bokk tax tiitàng bi doomu baadoolo yi nekkee nekkul ci yeneen doom yi am ndey ci Sénégal am ndey ci bitim réew mu jot nag réew mi mën a doxe ñaari tànkam bañ di doxe benn tànk be tax tey jii boor buñ ko bamaxee mu daanu ci ba ca des li ko waral nag ñi war a bokk ci mbir mi la ñu boolewul ñii xam nañu fi ñuy tijjee caabi ji nanguwuñ leen ko jox ñeneen ñi mën a tijjit caabi ji ñemewuñ ko jël ndax boo ko jële itam mën lañ laa toogloo ci buntu paxu janax sa der yàqu ca jinax la deram fajul dara te fu mu fekk der yàqu ko jaajëf Ousmane Sène ñu ngi lay sant di la gërëm di sant di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne nii ñu jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb ah, soxna Ramatoulaye Sall Diop soxna Ndeye Mariam Guèye ñoom ñoo fare woon kon ci xarale gi ci fare gi Aminata Mbaye réalisation Ousmane Sène ah, ci kanam tuuti rek soxna Fatoumata Sey dañ ko delloo kàddu gi su ko defee ah, mu wéeg yéen di des ci xibaar yi mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askan wi sunu gàtt yendoog jàmm